Assalamualaikum bokki internet yu Yegle TV ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu wax ci lu soxol tagat yaram ak sénégalais yi nga xamni dañoo di mer ba futu te loko ludut ko lu dut Aliou suisse ak lii di système am di 352 ah, tay ku ne xamna ni Sénégal dafa daal di tembo ak Burkina Faso ci match bo xamanteni ni si ah, nañ ni Burkina mo dominé won match bi mo upp ay tir cadré ci bilab jongante ba tax na ñeent ci sénégalais yi dañoo di mer ba futu lol lol lol ah, ñi ngi dax di Euh, Aliou Cissé mu daal di euh, démissionné ci li nga xamante ci si euh, ci équipe bi ndax nénañu nan lañuy amé ay latéraux de métier. ñu daldi a modifier ay excentré di def ay pistons vraiment lool tamit nek lo xamante ci si na Sénégalais ndax nénañu depuis bu mu daldi commencer li nga xam ne a 3 5 2 bi ba légui amagu ci résultat yu satisfaisant ñoom nag dinañ dinañu daal di wàcc terrain bi ngir daal di wane seen ak ñàkk ànd ak Aliou Cissé rawatina ci système bi nga xamante ne si mi ngi koy daal di li nga xam ni moo di Sénégalais yi changement yi nga xam ne daf koy daal di war a def euh, temps du ko daal di def ku ci mel ni Iliman Ndiaye xam ni mu ngi ci nekk euh, ci forme ku nekk gis na ko ci semaine yi euh, mu def ay performance yu am solo te soo xoolee tey man naa ne euh, ñetti simili daal di am ci terrain bi mu nekk loo xamante ne si Sénégal yu bëri ñu ngi koy daal di naqardu lool lool ñuy xool nag ba xam ndax Aliou Cissé dina daal di démissionné wala fédération bi dinañu xool naka la ñuy def ba daal saafara li nga xam ne moo di